bismillahi irrahmani irrahim sadaqallahu alazim wa ballaqa rasuluhu alkarim wa nahnu ala ma qada rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlana min alshahidin allahuma rabbana taqabal minna xidma alquran وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من زهير النساء أو تحريف كلمة أو موضع أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زاد أو نقصان أو تعبير على خير ما أنزلته وريب أن شكل أو تعجيل من أو تعجيل عند التلاوة أو كسر أو زيخ لسان أو وقوف بخير وقف أو إدخال بخير مدخل إيسان بخير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بخير مكان فاكتبه منا على التمام والكمال والمعظم من كل ألحان واغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا بما مولانا وارزقنا فضل من قرأ ومن حقه ومن أعضاه والقلب واللسان wa ablana bihi alxeyra walsaadata walbishaarata walamaan wala taxtim lana bilsharri walsaxaawati waddalaati waltuxyaan wannabiyina qabla almanaya annawmi da alxaflati walkaslaan wa aminna min adaabi alqabri wa min suaali munkarin wa nakiir wa min akli jiiraan wa bayd wujuhna yowma albaasi wa axtir riqaabana min anniiraan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 allahuma salli ala sayidina muhammadin saahibi shariati wal burhan bi rahmatika ya arhamar rahimin allahuma anfaxna warfaxna bil quran al azim wa barik lana fi ayaati wa dikri al hakim wa taqabbal minna innaka anta as-samiu al alim wa tub alayna innaka anta at-tawwabu rahim allahuma zayyinna bi zinati al quran wa akrimna bi karaamati al quran wa albisna bi qiraati al quran wa aafina min kulli balaa'i dunya wa asaabi al aaxirati bi hurmati al quran وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمته سي أمة سيدنا محمد باقي القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وإلى صلاة نورا وإلى الجنة رفيقا وبين وبين النار سترا وحجابا وإلى خيرات كلها درا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعذنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن wa najinaa min niiraani bi karaamati alquran wa adxilna aljannata bi shafaati alquran warfax darajaatina bi fadlati alquran wa kaffir anna sayyi'aatina bi tilaawati alquran yaa tal fadli wal ixsaan allahuma arzuqna bi kulli xarfin min alqurani xalaawa wa bi kulli kalimatin karaama wa bi kulli aayatin saada wa bi kulli suuratin salaama wa bi kulli juz'in jazaa wa bi kulli xasbin xasana wa bi kulli nisfin nicma وبكل رفع رفع وبكل ثمن ثناء اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالثاء ثوابا وبالجيم الجمال وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدار دنوة وبالذال ذكاء وبالراء الرحمة وبالزاء الزلفى وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالضاد ضياحا وبالظاه طهارا وبالطاه طهارا وبالظاه سفرا وبالعين علما وبالخين خناعا وبالفاء فلاحا وبالقاف قربا وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موحظة وبالنون نورا وبالواء وصلا وبالهاه هداية وبلام ألف لقاء وبياء إسراء وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما طلبناه إلى روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى روح شيخنا أحمد الخادم رضي الله عنه ونفعنا بركاته وإلى أرواح جميع الأنبياء والأنبياء المرسلين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 wasalaamu ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin mbooloo mi kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ne moo sàkk woon ñu daje fii jàng fi alquran di fi zikkar di fi jàng xasaat Seexul Xadim mu am lum ca jublu loola moom moo ko xam ak itteem fa mu toll waaye lu mën di xew rek noo ngi ñaan la mu ca yéene lépp ba lu mu ci sàkku lépp su mën ko nu kawe ñaan nag nu taalibe yépp su borom may mu yàgg fi lool su man ko kattan bàyyi ko ba lépp nu yéen liggéey sëriñ mu def ko doon ànd kook moom ñaan itam su borom faj yi ci sëriñ bi ba lépp lu mu wax rek ñëpp bàyyi ite def ko ngir xam ne suñu njëriñ ci loolu la nekk ndax moom lu mu digle rek njariñu julli ñëpp yoonu taalibe yépp te moo di ñu def lii mel ni def nañ ko na mu ko sàkko woon ko yàlla na ci dajeek moom itam la mu sàkku nuyu nday ceeg li ñu sàkku baraka Cheikh Al Khadim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. amiin